saani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ne ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew noo ngi am mbégte di toog ci jataay bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ko toog ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye toog ci kilifteef ak njiitul cheikh Mouhamadul Basir ibn cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba ba na te yore kàddu xalif général ku lu murit waaye jógit ci kàddu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ñu ànd ak Serigne Modou Mbacke si mom serigne mustapha si mom serigne malik Bassine yi nga xamne mo jité liggéey bi nga xamne mom lañuy def waye mu feggo ak serigne khadi Jaxate ak serigne Fallu si ak bokk yi ñu àndal ñu new nak ci kër go xamne kër serigne Mouhamadul Mountakha la waye kër Cheikh Mouhamadul mustapha la kër Cheikh Mouhamadul Fadil la kër njabootu serigne Touba gep la mu kër Cheikh Mouhamadul Amin bara موم سيرن توبا خادم رسول فك في جورين جيغا خامني موي ستن ديكو جيكو ووتو ووتو اي واي جورم واي توك توغاي مامام دي شيخ محمد المصطفى ابن شيخ سيدي المختار ñuy ñaan suñ borom mu may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér gi yaram amin te defal ko mboolem rakam yi top ci ginaawam yépp ak mbooleem taalibe yi topp ci ginnaawam yépp sëriñ bi jox ñu ndigal ci ne karawaan bi nga xam ne mooy xeñtu jeexitali sëriñ Tuubaa yi waaye ak di topp mboorum sëriñ bi fi sëriñ bi jaaroon waaye di def ndigal li nga xam ne Cheikh Sidil Mokhtar xalloon na ko تمودي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وياتليت واختصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا ما تكون سرنج واخون نيو فيب فو خامن دين دم نفا سوفا جيغوي سرنج بي ماني اغ نين كو فا ديمال لولو مو ياتال كاروان دي سي بير ريومي سي كيري دين يي سي كيري نجابوتو سرنج توبا جي اك سي كيري طالبي سرنج loole it bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñëwee loola rek la wax ne loolo mu xàlloon ngeen di ca jaar daal maag yéen ko daan ànd kon bu demee ba ñëw ci samay loxo dama naan leen wéyal leen ko ñu ñëw nag sëriñ bi di la nuyu di am mbegte bu baax ci dalal gi nga xam ne dalal nga ñu ko ci sunu kër di ko bayit boobu nga xam ne moo nekk ci Mawaahibu naan ki nga xam ni ñi bëggoon àgg ci seen borom ki ki leen di àggale seen borom tey agsi na ki indaale seen mbégte seen ngërëmul seen borom agsi na mu Cheikh Mawlou leen baara kere ci la ñooñu ñëpp yeewi leen ni leen li ngeen doon sàkku ci seen borom gan gi ñëw andil na leen ko mën ngeen a yeewi ko mooy sëriñ bi nga sëriñ bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadul Amin Baara ibnu Xaadimu Rasul indaale ñi nga xam ne ñoo jaayamatu sëriñ bi ca Mbàkke Kajoor nekk ñeent fukki góor nga xam ne wax nañ ko ba tàyyi wax nañ leen tur yi ba tey euh, dañu ci bamtu sëriñ bi jël ko tudde ko soppeem ba wasilaam ba sëriñam ba seydina muhammad ali isalaatu wasalaam moom ci boppam moo ko tudde yàlla dogal ñu teg ca diir bu gàtt ay weer juróom benn weer wax nañ ko nii juróom-ñaari weer sëriñ bi waxtu wii la toog tàkkusaani suuf noonu la ko sëriñ abdourahman du nettalee foofu ñu denc sëriñ bi ci barab bi fi la Cheikh Mawlin Bara ganee àddina moo tax sëñ Modou Mbacke si mën ni leen tey fab ngeen yëf yi jox ko boroom ndax suñu dee woote màggalu Mbacke màggalu Touba ñëw tàmbalee tey ci Cheikh Mawlin Bara ma wax la ni la tey bu ñu noonu kenn ku nekk fa nga àddina foofu ngay ñibbi sëñ Bara rek mooy kon su ngeen ñëwee indi karawaan bi fii jox ngeen ko boroom foofu nga xam ne fa la Cheikhul Khadim tëdd fa la Cheikh Mouhamadul Amin Bara ibnu Khadim Rasoul ganee àddina ba mu tegee juróom-ñaari weer sëriñ bi woote tàkkusaani suuf ni waxtaan ak ña fa nekk ñëpp soxna aw busa nga fa soxna amintu loo ma nga fa bokk na ci kàngam yi nga xam ñi ko fekke woon ñi nga xam ni ñi ànd nag sëriñ bi di magi taalibe sëriñ bi ni leen sama ruu gii de sama borom dafa wax daf koo soxla waaye may na ma su ma amee ku ma mën a faatul ma mën a àggale liggéey bi soxna amintu daf daal ni bërit ni ko man jaam-jaamaan rekk la ñoo bokal nekk ci kër gi di sàkku ngërëm maay seenub jam ñoom ñëpp samay sang lañ ñaar laa fi am muy cheikh mohamadou moustapha ak cheikh mohamadou lamine baara da ngay da ngay dem demal ñëpp nga sàmmal ma leen ndax lima gis nga yenal ko jam bi ci aw sa dënd bi duma seetaan mukk di ko kon bal ma dem demal leen ci ginnaaw loolu la dem ci ginnaaw néeg bi benn ndox la doon wut wala matt muñ doon la ko ndox suuf bi mu ñëwee fekk na sëriñ bi tal tàmbali kàbbar di julli laata sëriñ bi noppi julli gi soxna Aminata Lo wujji na boroomam Cheikh Amadou Bara toll ci juróom-ñaari weer dem raam wuti soxna Aminata Lo bi sëriñ bi sëlmalee moo ñëw jël ko bi mu ko jëlee nag benn lettre Cheikhul Khadim moo bind ca ca jëf joojee nga xam ni waajuram jëfal di jëf ngir jëmmam ndax dañoo wax ni yoon wi yoon jaayante la du ab tarixa Cheikh wax ko la yàlla waxoon saxaaba wax ko yonent bi ni ko dañoo bëgg a jaayante yow jaayante ki ñu jaayante ak yow nga warlul ñu ci aljanna yonent bi mën mu leen man de moom ma àjjana moom ma sawara ba leen ci ba leen koy gàddul mbaa ba leen tee waaye suñu borom wàcce benn aaya ni ko inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi suñu jaayanteeg yow joxe seen bopp joxe seen alal ci yoonu yàlla sax ci ndigal yi yàlla jëlee na ko aljanna di leen ko fay aljanna loolu moo waral ñaan ku joxe sa bopp dem aljanna du waxi sëriñ bi mais waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak diggante yonente bi alayhi salaam ak sahaaba yi bi loolu amee mu ne la xad radiyallahu anil mu'minin is yubayyi'una tahta shajarati jaayante googu nag moo war a soxna Aminata Lo joxe bakkanam ci sëriñ bi sëriñ bi la mu ko ca fayee mooy bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu faalam bi annaka yaa muhammad al amin sa tanaalu maqaman yaghbiduka fihi jamiu amsalika وأن كل من كان معه جميعا لا يرون إلا ما يسمع ويرون في الدنيا والآخرة وهم يدخلون الجنة بخير حساب ولا تشكك في كون هذا من الله ورسوله إليك ومني وسلام لين جبلي شيء واحد موي لسرين بفاية شيخ مولين بارا تلول واي نيون دنيو دنيو تان باي باتين بفلي تاي واخ تي جيفم اكو نيتيم اكو لاي بيرم غو خامني موم لا دوخ سي ادنام اكو جانغلي دون جانغلي موم لا نتان loolu nag dafa mënta ñàkk ndax bi nga xamante ni soxna si faatu na ngir ndigalu sëriñ bi ngir jot bakkanam seex Mouhamadou Bara dem ram bëgg a seex weenu yaayam loolu la ko sëñ Touba faye mooy ni ko xamal ni ko xal set nga am maqaama moo xam ni sa moroom yëpp dañ la ci ñee am na ñoo xam ne amuñu moroom waaye moroom mooy koo xam niko xëy na yaag jamono yaa yaag moom jamono ne jamono ko dañ la ci ndax képp koo xam dafa ànd ak yow du gis lu ko nakari àddina ak àllaaxira dina dugg àjjana te kenn ko ni ko bul sikki sàkk ci lii ci yàlla la jóge subhaanahu wa taala jaar ci yonte bi alayhi salaam ñëw ci man mi soo a ñëw ci yow lool moo nekk ci lettre bi bi amee itam sëriñ bi fab soxna Cheikh moom leen baara jox ko soxna amit soxna Awa Bousso yaay Cheikh Mamadou Fadel booba soxna Awa buso am na soxna Mariama Kunta mu boole leen ñoom ñaar di leen nàmpal ab diir ginnaaw bi sax sëñ Tuubaa jëlaat na ko jox ko <coughs> yaay sëñ Modou Mamoun moom it nàmpal na ko ab diir kon Cheikh Mouhamadou leen baara mën nañu wax ni ñu bari sax dañuy xaw a kii loolu waaye yaay sëñ Mourou Mamoun sëñ Fallou Gala Syll nàmpal na soxna sëñ Cheikh mooy leen baara nàmpal na ko ni ko soxna aw bu so nàmpale kon soxna sëñ baara Cheikh mooy leen baara am na ñetti ween yoo xam ni nàmp na ko bi matee dal jàng itam waajale mu sel wi c'est yaakaar naa loolu de sax waaw ah soxna Aminata Lo moo nàmp soxna ah, waaw waaw sëñ sëñ Modou Mamoun moom itam moo ko soxna soxna Aminata daf koo nàmpal da ko baal voilà loolu laa a jaxas maanaam so sëñ sëñ Modou sëñ Modou Mamoun sëñ sëñ mook sëñ Baara la soxna Aminata Lo boole woon doon leen nàmpal ñoom ñaar kon biir bi noonu la demee bi mu waree dal alxuraanul karim itam ku tedd ki barkelal na ko àlluwaam soo ko jox sëñ Abdourahmane Lo jaar na ci moom bi mu dem ci géej gi jox na ko borom daaru ni mu ko joxe Cheikh Mamadou Moustapha joxe ko Cheikh Mamadou Fadal mu yor leen jàngal leen yar leen ni mu yore woon ñëpp ci biir loolu itam bari na yu ci xew loolu bi muy jàng itam euh, moom Cheikh moo leen baara ba àgg ci aay bi ñuy wax xëy haata xëy haata lima tuaduna foofa la ko ab feebar dale li ñuy wax peste bi mu ko dalee maam Thierno di yàlla na ak boroomam ni ah doomi sëñ Tuubaa yii ma sëriñ bi dénk bu ci kenn naree génn àddina day daal am lu mu ci yu bare bari teg njabootam gépp am ko ko dégg ca ginnaaw ñëw yuuxu ni man de bu fekkee kii dafa na a génn àddina Cheikh Mawlin Baara man jaral na ma génn àddina kooku ci bis boobu la génn àddina bi ko loolu dabee nag moo tax Cheikh Mouhamadou leen Bara waxam leeratul ak déggam itam neexatul waaye teewul àggale na àlluwaam ba bindal Cheikhul Khadim ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ni ma doon jàngee itam mooy dañ koy bindal bind bi ci àlluwa ji mu koy xool ba mokkal ko su ko mokkalee dañ koy raxas mu bindaat ko noonu la jànge ba jàng alxuraanu karim ba mokkal ko ba bind ay kaamil yu bari xam-xam itam kenn xamul num ko jànge ndax bo démé ci khassida gi ñu wax Munawwirul Bundaan ma ngi tay wax na inna allaha yuallimu man yasha'u biduni khira'a wala kitab biduni kitab khira'a wala biduni khira'atin inna la yuallimu man yasha'u biduni khira'atin yàlla man na xamal ku ko neex te koko du jàng kon dañuy jàpp ni yàlla mi nga xamni moy joxe xam-xam mo jox Cheikh mohammed Lamine Bara yenn xam-xam yi nga xamni bindina lu nek ci walu xam xam-xam ni ñu ko xamee ndax buñ dee xool ci njabot gi ñëpp bind ñëpp xam ñëpp la sëñ bi def ci ñoom waye limu bind ci ay ay xasaayit bind ko ci ay téré li jëm ci tasawuf yi jëm ci ay tawassulat yi jëm ci walu tawhid yi jëm ci walu tarbiya yi wal jëm ci walu walu walu walu asrar lim ci bind ken bind ko mom Cheikh Moulay Bara kon nit la ko xamni dafa melni li nga xamni mom la cheikh cheikhul khadim junjoon ci lettre boobu bi waajuram génne àddina loolu lépp sëñ tubaa da ko dëxëñ ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara su may wax dama naan Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mooy waxe na wi nga xam ni ci la Cheikhul Khadim dëxëñ ay secret e, bi mu demee ba war a mat samp kër wax naa leen ko 1910 ci la ko Cheikhul Khadim yabal mu dem sànnu si kër nijaayam waaye ginnaaw fu waaye dem da nga fa war a liggéey bëgg fay bay bëgg fay eh, liggéey xat suuf su xat la ci la ko sëriñ bi wooyewaat mu ñëwaat fii ci Touba 1900 ci la bi wooyewaat fii mu ñëw fii 1912 nga xam ne ab taawam sëriñ Mouhamadou Bara foofee ci tubaa Sanosi fa la gane àddina bi mu ñëwee itam mu boole ko jawriñ ju mag yi sëriñ ñaan sëñ sëñ sëñ ñaan Diop mu sanc fii ci atum 1913 bi mu fi sancee 1913 am fi ab diir Cheikhul Khadim yebal ko mu dem sanc Daaru Mbàkke Kajoor booba 1912 wax na borom daaru mu sanc Daaru Moxti mu bàyyi fa maam Cheikh Awa Balla ak sëñ Mbàkke Kajoor ak mbokkam mu baax ma muy maam Amar Fall Mbàkke bi sëriñ bi woowee maam Amar Fall Mbacke moom Cheikhul Khadim ni ko dama laa bëgg a indil Cheikh Mouhamadou leen Baara mu wettali leen waaye ku jafee nekkal la sëñ maam Amar Fall Mbacke da ko ni Mbacke dañu mën nañoo nekk ak moom ndax du ñu xëccoo moom dara te lépp lu mu bëgg danañ ko defal danañ ko bàyyi ak moom sëriñ Baara bàyyi ko fii jaar ci borom daaru dem sàcc Mbacke Kajoor moom itam ci atum 1913 jàpp 14 ci la sàcc Mbacke Kajoor nekk fa di jàngale di tarbiya di liggéey. nga xam ne moom ab jàngalekat la woon nga xam ne Mbàkke Kajoor bi fa Maamoor Anta Sali ñëw dafa doon jàngale Cheikhul itam radiyallahu taala anhu dafa daan jàngale ndax bi muy jàng nekk at yi bareegul ci saayir at yi bareegul ci saayir eh, waajuramu sell wa alxaadi Maamoor Anta Sali gisoon na ubbi ko gu mu amoon ci wàllu xam-xam ba bari na téere yu mu ko daan jóor doon ko ko jàngal sax ngir mu war a mën a ñi nga xam ne doon jàng Cheikhul kon cheikhul xadim moom itam daf daan jàngale cheikh moom leen baal itam jàngale moom la doon ci waajuram nga xam ni su masaa di bind dara te euh, maanaam lettre en tête bi Mouhamadul Amin Baara mu dare sul Qur'an la ci defoon cachet bi mu amee itam Mouhamadul Amin Baara mu dare sul Qur'an moom la daan cachete kon ab jàngalekat la woon moom cheikh Mouhamadul Amin Baara nekk koo xam ne dafa fonkoon liggéey façon liggéey yëpp nag daf ko daan liggéey ci loxol boppam ngir njaboot gi mu yoroon muy taalibe muy waa kër gi dafa yoroon ab magasin bu mag def ci ay piis def ci ay machine yoo xam ne moom la ñuy ñawee li dongo yi daan sol yëpp ak waa kër gi moo daan jël piis yi xotti ko dagg ko ñawal ko boppam ci kaw machine bi jox ñëpp ñuy sol nga xam ni kon dañuy wax ni ma méccam téyeer moom Cheikh leen Bara moom la woon doon na ko de bokk na ci li mu daan liggéeyee bëgg daaj ay seng itam ab baraag wala bardaas wala lu man doon moo ko daan daajal boppam ci loxol boppam loolu day firndeel ni dafa fonk liggéey li yàlla wax ni i'malu fa sa yara laa wa amalukum wa rasulu wal muminun nit dafa war a liggéey Cheikh Mouhamadou Bara jàngale na liggéey kenn bañ cee xeeb benn métier ci wàllu mbay tarbiya itam daf daan tarbiya di jàngale di yar di xàjjale góor ñi ak jigéen ñi ci wàllu tarbiya bi nga xam ne mosul bëgg bëgg mukk jigéen ñi ak góor ñi di gisante bay jaxasoo ndax euh, sëriñ bi wax na ma mas na ma wax ni Cheikh Sidi Makhtar sëriñ Bara da daan wax ni euh, nit buy sàkku yàlla sàkku yàlla waxuñu jaxasoo booy sàkku yàlla di wut tarbiya di wut di wut barke da ngay moytu jigéen di la gis da ngay moytu jigéen di la gis di la xeemeem ndax dana wax ne ay nangeen moytu jaxasoo gis jigéen ji di leen teg seen i bët ndax xeemeem gi ñu leen xeemeem day mel ni yoo yu sar rab gu dugg ba sar rek day di leen moytu jigéen ñi di leen teg bët ndax loolu baaxul ci yéen góor ñi yéen itam jigéen gis ngeen ngeen li gis day wàññi seenu yool ci liggéey bi ngeen liggéey ak sàkku bi nga xam ne ngeen ko sàkku barke day tax li ngeen di sàkku day yeex kon loolu doon tarbiya nekk koo xam ne itam ku bëggoon liggéey la bi mu nekkee Mbàkke Kajoor am na fa tool bu mag tool ba sëñ Moustapha miit moom mooy bi nga xam ne lotissé na ko ngir bëgg ñëpp mën fa am ay kër ba mu fa jógee mu dem fu ñuy wax Mbaraka juróom-ñaari kilomètre la ci Daaru Moxti wala juróom fu ñu wax Daaru Rahman sanc ko lan moo tax mu sanc ko dafa doon liggéey la sëriñ bi bi mu nekkee njaareem ndax mën naa la wax ni seexul seex Mawlin Baara lépp lu mu am mbaa lépp lu mu def ci nekkuk sëriñ bi la ko def ci nekku sëriñ la ko am ndax juróom-ñeenti at rek la ko sëriñ Tuubaa jiitoo kon daanaka li mu doon def lépp ci nekku sëriñ la ko doon def li mu am lépp itam ci nekku sëriñ la ko am li doon sanc lépp itam ci nekku sëriñ la ko doon sanc moo tax mu sanc dëkk yooyu fu mel ni Mbarakan fu mel ni Touba Ndiog Mbacke Ndiog dëkku sëñ Baara bi fu mel ni e, Touba Ndiambour fu mel ni Mbacke Bari fu mel ni Xellere fu mel ni Touba Kébémer fu mel ni Touba Louga yooyu yëpp dëkk baa màgg fekk si ko waaye sëñ Bara da ko sañcoon doon fa liggéey te lépp lu fa ma a liggéey da ko daan yóbbul ko tedd ki ci njaareem même njax yi nga daan gis njaareem euh, sëriñ bi daan ci def ndox ci wanag ya bokk na ci Cheikh leen Bara moo ko daan liggéeyloo Mbàkke Kajoor ñu ko daan ñu ko daan liggéeyloo Touba Mbarakan ñu koy yenu di ko yóbbu ba njaareem di ko yóbbu sëriñ bi ay addiya keroog sax am na lettre bi ma lay wax nii li ma la wax mooy sababu nuzul bi waaye bi nga xamante ni jëlee nañ ñaq yi Touba Mbarakan yóbbu ko njaareem keroog ba ñu àggee la sëñ bi joxal leer bi ni ko Cheikh Mawlène Bara euh, ngir xamal ko ni ko lii sa waajuru sell wa soxna Aminata Lo moo ko liggéey ci loolu la nekkee Cheikhul Khadim bindal ko ay kaamil di liggéey di ko jox ba Cheikhul Khadim 1927 mu génn àddina ñibbisi fii ci Touba bi mu ñibbisee Touba Cheikh Sidi Matar wax na ma ni fa mu nekk ca njàmbur da daal di wàcc lal ba toog ci suuf jox boppam Cheikh Modou Moustapha def ko muy ab sëriñam daal di fay déparé ñëw si ñëw njaareem fekk fa Cheikh Modou Moustapha jox ko boppam def ko muy ab sëñ tubaam def ko muy léppam nekk ab taalibe nekk murid saadix liggéey ko ci fànn yëpp ba bi nga xamante ni Eh, wax naa sax waxu baatin du ma ci dugg waaye ci liggéey bi nga xam ni moom la Cheikh Moustapha sóobu te muy liggéeyu jumaa yi Touba gàllankoor yi bari woon lool Cheikh Mawalini Ba am na fu mu ci féete fu bari waaye saayir bi laay wax saayir bi mooy bi ñuy gas raay bi bokk na ci ñi mbooloo bi mu joxe bokk na ci ñi ëpp mbooloo moom joxe ci liggéeyu raay bi maanaam lépp lu ma a liggéey ci ay addiya ci tool yi jox na ko Cheikh Moustapha mu def ko ci. jumaayu Touba ji eh, nekkoon ku ko déggal ku ko jege am fu mu ko féete woon itam fu bari nga xam ne ak taalibeem am na benn bis boo xam ni Cheikh dafa ñëw jënd ay dàll ni da ko jox Cheikh Modou Lamine ndax gis na ni moom amul ay dàll ñun ko Mbàkke am na ay dàll ak taalibeem moo ko moyul suy ñëw njaareem dala seet sol ay dàll sol musa sol ay dàll ci biir dëkk bi ndax wormaal goo xam ne da koy wormaal Cheikh Modou Moustapha radiyallahu taala anhum ci loolu la nekk moom Cheikh Abdou Lahad Bara di dimbali nit ñi nag di leen xettali ci wàllu baatin ndax ñu bari dañuy wax ni sëñ Bara dafa tàng ñu bëri dañuy wax ni sëriñ Bara dafay alage ñu bari dañuy wax ni sëñ Bara daan lakk néegi jàmm déedéet loolu sore naa loolu li am Cheikh Mouhamadou Bara nitu yàlla la woon nekk jàmm yàlla bu dangu dogalu bu yàlla nekk wàll yu kaamil boo xam ne ñëpp nangul nañ ko ko koo xam ni daf daan jóg guddi ak bëccëg di dox di xet li doomu aadama yi di dem ci dëkk yi di leen bindal seeni tànk ngir kum sa tànk at moom doo ci faatu léeg-léeg kenn jox ko tànkam seex moo leen baara fadilu mas na ko nettali nee bi mu nekkee balal di jàng bi bi mu koy tàggu si guddi la fa ñëw fekk ko balal ni sama turandoo wii moom laay seet si ndax damay tukki tukki bu yàgg te duma gaaw a dellu si nuyonteeg moom saafonteeg moom foofa jët ñëpp ñëw di ñëw kenn ku nekk di ñëw mu lay jox sa nga koy jox sa tànk mu lay bindal wala sa loxo kum bind sa loxo doo faatu ci at moom wala sa tànk am ko jox tànkam sëñ Bara ni ko du ma la bindal ndax kii dafa war a faatu. mu du ma la bindal ay eh, day ndax ki maanaam ku génn àddina. ci moomu du la bindal sa tànk. mbaa balaa lay bindal di nga am loo jotowoo di nga am loo ko jox njot. mu laaj la ko mu soog laa mën a bindal tànk bi ñu koy liwaayu ba mu ne xanaa mën naa joxe nangam mu soog a joxe nangam loolee mu bind tànk yi kuy def loolu nag ko tànguloo kuy def loolu ku laa bir nga te guddee bëccëg loolu daan dox nitu yàlla amul benn nitu yàlla boo xam ne yàlla mooy la xadd xalaat na insaan fii ahsani taqwiim ngay sopp mbindum yàlla moomu nitu yàlla yëpp wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina wàllu yàlla woo gis yonent yàlla boo gis ci luy xeetal doomu aadama ci lay xëy ci lay gont Cheikh Mouhamadou Amine baar mi itam ca loolu la nekkoon sëñ Abib Sakho mi nekk sëñ Souhaïbou sëñ Souhaïbou moo ko na sëñ Bara dafa mës a ñëw fi waajuram moom sëñ Abib Sakho moomu mu ñëwee euh, sëñ Bara xool ko ni ko jox ma fanweeri dërëm soo ma joxee fanweeri dërëm at mu ne daa bu ne daana am at wala ñetti dërëm dërëm bu nekk fukki at la sëñ Souhaïbou moo koy nettali nee na sëriñ boobu bàyyi sëñ Abib Sakho dem fexe ba indi ko sëñ Baara laaj sëñ sëñ sëñ sëñ soxna bu nee na ma bind ko takk ko nee na booba ak bi mu faatoo fanweeri at ak ñaar la ne kon bi ko sëñ Baara wax loolu ñaari at rek moo ko dese woon mu yokk ko ci fanweeri at. noonu la sëñ Baara daan doxee. koo xam ni dafa bëggoon loolu ay xale fu mas a toog ndaw ñaa ngi ko wër Cheikh Sidi masaa wax na ni suñ masaa indi reer bi balaay la reer day tibbal xale yi. seen ndekkil suba moom cere lañ daan ndekkee su xëyee day woo ñëpp ñu ñëw mu tiim leen di leen defal ñuy ñuy ñuy ndéego ba ñu suur kenn ku nekk mu ñaanal la raay sa bopp soo waree jàngi dem jàngi soo waree toog ci moom motu koo jàng toog ci moom noonu la Cheikh Mouhamadou Bara nekk woon nekkoon ku amoon li ñuy wax li tubaab di wax